loxo yi ngeen ni tàccoo na ko gàddo seen carte sànnil ko Zahra Zahra Iyane Thiam yi ngeen ni tàccoo na suñu mag yi suñu rakk yi ay jigéen yu am jom lañu jigéen yu bëgg a liggéey jigéen yu diiñ seen bopp ndaxte tey ñoom jigéen moo yor kër moo yore njaboot te tax madame le maire ñu xam euh, sa engagement ak sa ni ngay taxawoo association yi ak euh, jigéen yi ak euh, néew di doole yi ak xale yi di la ñaan nga taxaw bu baax suñu waa suñu gox bi ndax ñun defe naa dañoo fàtte ñun bokkuñu Sicap te Sicap lañu bokk ndax yow xam nga fii bu baax ndax fii nga fooyee nga fi fii nga nekk nii terrain basket bii boo ko xoolee gis nga ni mu délabré fii cosaan la balaa ñuy wax TBS balaa ñuy wax Antiyana fii la ñu wax donc fii dañ ko war a gëstu jàppale ñu bu baax ndax jigéen yi soxla nañ ko suñu yaay soxla nañ ko ndax léegi ay mag lañu ñun ñoo des nag ñoo war a jël relève bi mën na jàppale dooleel leen ma leen ñaan yéen tamit waa immeuble yi ngeen jàppale suñu rakk suñu mag suñu sœur bu wan bu dimanche jotee ñu votel ko vote bi ñaar la benn bi local la beneen bi départemental local bi pour votel ko la ndax bu jëlee mairie bi ah ñun de buñu tëddee dinañ nelaw ndax yaakaar nañ ci moom ndax gor la garmi la lu mu wax du ci delluwaat ginnaaw lu mu wax da koy def yi mu gis fii ak ñi mu dimbale ñëpp gëm naa ne ñun tamit war nañoo war a mën a bokk ci loolu buñ ko jàppalee wallaahi ah duñ ko rëccu bi nag code départemental la. qu'il nous faut à la SICAP aujourd'hui nous vous souhaitons la bienvenue dans notre commune SICAP Liberté. Aujourd'hui, nous recevons une brave dame dont on ressent reconnaît son engagement et son courage aux côtés du chef de l'État, Monsieur le Président Macky Madame Zahra Iyane vous êtes un exemple pour toute femme sénégalaise et c'est un honneur de vous avoir parmi nous dalal ak jàmm Madame Diouna, pas de vos enfants. loxo yi ngeen ni tàccoo na ngeen ko gàddo seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra Iyane Thiam yi ngeen ni tàccoo balaa may wax dara nag gannaaw bi ma sante gërëm imam ak shérif maamin bi nga xam ne ñooñu ubbil ñaanal ñu maa ngi gërëm sama doom yi nga xam ne ñoo ma jox cadeau bu dugg sama xol et c'est le premier cadeau qu'on va à la mairie inchallah lettre bi tamit discours bi dinaa ko def cadre bu rafet ma teg ko sama salle après le reste on parce que keroog Antiana laaj naa maman yi ndax wóolu nañ ma dénk xale yi donc buñ ma leen dénkee rek après ñu def suñu affaire maa ngi aussi nuyu ñu jël kàddu yëpp bàyyiwuma kenn vraiment du doyen Abdou Faye bi nga xam ne il nous a encore fait bénéficier de son expérience à bi nga xam ne moo yore calebasse yi femme des immeubles jaarale ko ci doyen Jabaate bi nga xam ne moom ak la doyen Ahmad Seck que je nuyu que je salue au passage di ko jox wàccuwaayam euh, di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér taxawaayam fii ci biir cité bi xam nañ ko maa ngi lay yónnee ci moom nuyoo di ko sargal di la nuyu yow ak délégation bi nga àndal yépp di la remercier ci taxawaay bi à nos côtés depuis le début maa ngi nuyu également waa jardin botanique ñoom tamit c'est une longue histoire madame Coly moo wax ci seen tur mu wax wax bu am solo boo xam ne kontaan nañ ci lool président Ablaye Ndiaye nekk fi waaye moom mooy président syndicat bi te moom tamit euh, li ma wax ci ñeneen ñi rek mooy taxawaayam may saluer également la prise de parole des jeunes bi nga xam ne Omar Gueye moo leen représenté di beral nuyoo nag Beya ak Khadim ñi nga xam ne vraiment suñu ñëw fii seen loxo la jaar ñu am ci taxawaay bu ama ama am solo am ci engagement kon ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier Beya wax nga ko bi ma dugg see fii li ma njëkk xalaat mais terrain léegi nii la mel ndax fii biñ fi mujj ñëw rapatak lañ fi organisé woon élection locale u 96 euh, ou bien 96 la ñu ñëwoon fii organisé fi rapatak mu fees del keroog frère gise ñoo defoon animation te boobu ñu ngi doon def euh, campagne ak ñoom dem si yàlla maire bi Diall ñoom Kalidou Dieng ñoom Siga Sey Coulibaly vraiment c'était la belle époque époque bi nga xam ne ñun ñëpp dañu duggoon ci politique kon environnement bi dégradé wu na bu baax a baax li ngeen wax ci diagnostic bi am na lu bari lu ngeen bàyyi diagnostic boobu dégg nañ ko mais li ma bëggoon wax surtout loo xam ne dafay dalal xel mooy yéen waa étagère ak man mii nga xam ne tànn ngeen ma def ma seen maire te ma jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñoo bokk mbébét ñun ñoo bokk préoccupation te mbébét bi ak préoccupation bi ñu bokk mooy comment améliorer suñu mode de vie suñu cadre de vie suñu façon dundi de manière générale comment améliorer ça considérablement à travers l'environnement fi ñu dëkk suñu dëkkuwaay à travers l'activité économique suñu entrepreneuriat à travers la prise en charge de nos familles euh, wax ngeen ko état yi c'est la vitrine te bu fekkee ne incha allahu rabbi le 23 janvier lii nga xam ne population yi wax nañ ñu ko à travers SICAP te Mbagnick wax ko bi muy daaneel nee na ñun war nañu tànn parce que xëy na profil yi ñu am bii moo ci gën ñoom loolu mooy seen choix mais li mu gën a wax lu am solo mooy bu ñu demee ba jox la nanga def loolu la nit ñi di xaar si ñun parce que yaakaar bi am ak dynamique bi am gëj na am Sicap depuis 1996 li ñu nekk di gis fii man gëj naa ko gis depuis 1996 avec tout cette jeunesse engagée qui se bat parce que gëm nañ ne li ñu wax dinañ ko def kon bés bu ñu tegee ci boppu mairie sama yitte ak li nga xam ne moom la ñuy xëy suba ak ngoon parmi les autres priorités que nous avons citées ce sera de faire de Sicap Liberté la vitrine de la ville de Dakar parce que ak nu mu mënti demee Dakar koo ne jet xam na fan koy tegtal boo ko waxee liberté mbaa nga wax ko Mermoz mbaa nga wax ko jëppal mën na réer mais jet d'eau ñëpp ko xam allée Ababacar Sy ñëpp ko xam terminus liberté 5 ñëpp ko xam Bourguiba ñëpp ko xam stade Demba Diop ñëpp ko xam loolu ce sont des vitrine c'est des miroirs dañ ko war a defar aménager ko mu nekk à l'image des de Sicap kon li nga xam ne mooy la qualité de vie dinañu fexe ñun ak conseil municipal bi ñu delloowaat ko au cœur de nos préoccupations kon yéen waa étage xam leen ne vous n'avez pas fait le mauvais choix te balaa ngeen di xam ne vous n'avez pas fait le mauvais choix d'abord on n'attendra pas aussi longtemps pour revenir ici mais j'espère qu'on n'attendra pas autant pour avoir un cadre de vie rénové keroog bi ñuy wax audience bi ñu defoon siège ba am na lu ngeen ma fàttali nee ngeen ma président bi mu ñëwee am na lu mu waxante woon ak ñun loolu mu waxante woon ak yéen maa koy gàddu te du ma tàyyi te loolu ñu waxante woon amul quand bien même c'est un c'est une cité privée ça aussi il faut le préciser quand bien même fii c'est une cité privée mais yàlla dafa def seen particularité mooy vous êtes une vitrine comme vitrine ngeen nag dañ ko war a defar parce que yéen rek moomu leen ko Sicap yépp a ko moom leneen li nag wax nañ ko ban taxawaay la ñuy am ci ndaw yi ban taxawaay la ñuy am ci entrepreneuriat local bi loolu dañ ko tënk ci programme bi population yi wóoluñu ci moo tax ñu jox ñu jox ñu bopp kon li si des rek mooy expertise bi nga xam ne yépp dafa nekk biir SICAP te mën naa ne tey 80 pour cent wu expertise bi nekk ci biir commune bi yëpp mi ngi ak la liste mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar kon il n'y a pas de raison fii rek jotaay bi fii ñu taxaw bu ma limoon profil yi fi nekk nit ñi dañuy jommi massa mulaak nag fu ñu dugg am nañ fi benn wala ñaar wala ñett ci expertise yoo xam ne ñoom ñëpp pare nañ pour mettre ko à la disposition de l'équipe municipale kon forcément il n'y aura pas de fatalité si Cap Liberté changera de visage avec la liste Benno Bokk Et je m'engage ici, parce que c'est un moment solennel, je m'engage ici à être le maire de tous les Sikapois et de toutes les Sikapoises, sans distinction aucune. Parce que nous sommes pour le moment des adversaires. mais à partir du 23 janvier, nous serons que des Sikapois et des Sikapoises. Donc, je serai le maire toute la commune.